maa ngi maa ngi nuyu waa Thiès yëpp maa ngi nuyu gouverneur u di nuyu préfet Thiès di nuyu autorité yi yëpp maa ngi nuyu tamit sama collègue maire yi yëpp yi nekk biir Thiès ak région de Thiès yëpp di nuyu tamit monsieur madame Aminata Mbengue Ndiaye di ko sant ci jàppale bi yu ngi yónnee na fii délégation bu rëy donc mu xam ni Aïda Sall moo ñëw teewee ko ak Lamine Diouf conseiller technique ministère de l'hydraulique maa ngi gërëm waa Morna yépp ci gunge bi ci jàppale bi kon boog vraiment waa Thiès ñun ñépp dañoo war a sant Sidi Diakhaté dañ ko war a gërëm dañ ko war a ñaanal Sidy lu muy def ci jeunesse bi am na maanaa trop maanaam mu ngi def promotion de la jeunesse Sidy mu ngi xeex contre maanaam chômage jeune yi kon Sidy yàlla moo lay fay li nay ñaanal nga wér li nay ñaanal nga tal ko nga mën ko yàlla may may la katan bi may la xam-xam bi may la am-am bi vraiment maa ngi gërëm aussi mbër yi yëpp fàttewuma kenn mbër yi ñëwoon tey pour bëre ça a été fait dans la discipline vraiment j'espère aussi que ñii mujjee noonu lay demee en tout cas maa ngi leen di ñaan yéen ñi xam ni yéen a mujjee maa ngi gërëm aussi vraiment la sécurité maa ngi gërëm bu baax a baax le commissaire et l'ensemble des agents participer nañu ci sécurité bi vraiment maa ngi gërëm ñëpp ku lim nekk day juum su ma sañoon ma lim ñëpp journalistes yi tamit voilà kenn demul ngeen des la presse vous jouez un rôle capital vraiment ñu ngi leen di gërëm ci seen liggéey en tout maa ngi gërëm ñëpp rawatina nekk sama conseil municipal sama adjoint fii conseil municipal Morna bari na ñu fi ñëw en tout cas maa ngi gërëm ñëpp di sant aussi les responsables comme Habib Kane Sow vraiment ñëpp ñi xam ni. dugal nañ seen loxo ci làmb ji siidi Anava ñu ngi sa ginnaaw dinañ la jàppale maa ngi woo aussi maire yi yëpp ñu jàppale Sidi ñu jàppale promoteur u loolu mooy tax làmb bi jëm kanam maa ngi woo ñëpp lii du dara investissement la bu xam ni day am njëriñ ci xale yi kon boog vraiment maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp man nag benn appel lay mujjee lancé dañoo jógee démb gàmmu daaru Alpha maa ngi ñaanal suñu xalif jibi combaan yàlla may ko wér mais li may ñaan président Macky Sall maa ngi koy nuyu au passage ndax moom nañu bàyyilee xew-xew bii maa ngi woo président ñu def Daaru Alpha ville religieuse maanaam ñu bokkal ci ñi xam ni dinañ fa def ay infrastructure pour que dëkk bi parce que léegi pèlerin yi xajatuñu ci biir maanaam dëkk bi kon maa ngi woo président Darou alfa nga boole ko ci programme mu ville donc gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp vraiment que le meilleur gagne que le meilleur gagne ngeen jëf. waaye yow eh ku la avertir. building daf koo xëpp galaaj. building la ñu avertir daa ëpp daa xëpp galaaj ki nga xam ne mooy Aladji Gaynde dimanche 9 février 2020 au stade de Maniang Soumaré. oh Sidi Diakhaté le promoteur bi nga xamante ni moom moo jël bi le drapeau di drapeau monsieur Yves Lamine Ciss diggante ki nga xam ne mooy building ak ki nga xam ne mooy Alaaji Gaynde oh ku ma woon ginnaaw Alaaji Gaynde ma woon ginnaaw building moo ma kanam nogoy oh building Alaaji Gaynde bu nu jàppantee mu jeex alaaji gaynde mooy borom ngemb lu ñuul li building mooy tibb noonu suuf alaaji gaynde tam tibb na suuf kon daanaka bu nu jàppantee sama waa mu jeex oh tey du gis lu rëy tey du gis lu lu mësul gis fii Ceesaan ma ñaaw Soumaré man ma ñaaw Soumaré rek ma ñang Soumaré ndeysaan arbitre bi nee na leen daje leen arbitre bi nee na leen daje leen. ndeysaan ndeysaan oxo arbitre bi na leen bàyyi ñu bëree sama consultant. arbitre bi da war a bàyyi ñu bëree. parce que combat bi du combat bu ni asaaloo. daaw ba la taxawoon duñ ñëw asaaloo ko. mbokk. wax nga dëgg. doo ñëw asaaloo sa combat. wax nga dëgg faaw nu tekk. ni tey ànd ak tekk ak dal. ndax ndeysaan ku nekk ci ñoom daa am lu ne sa ginnaaw. building building Alaaji Gaynde oxo building Alaaji Gaynde arbitre bi dagg na ko ndeysaan dagg na combat bi sifflé na diggante building ak Alaaji Gaynde ndeysaan building Alaaji Gaynde ñu ngi diggante building ak Alaaji Gaynde oxo ndeysaan building a ngi noonu alaaji gaynde ngi wër building a ngi ni tekk di ko déglu building mooy borom ngemb lu vert li mooy borom ngemb Lagos lu vert waay laay la laa building alaaji gaynde alaaji gaynde war na ma ginnaaw mi ngi noonu wër na dem na wet gëli taxaw di ko xaar building ni building taxaw di ko xaar moom itam cey bi combat ndax building la mu waxoon lay def ndax alaaji gaynde la mu waxoon lay def lu ci maanaam arbitre bi bàyyi na leen ña ngay bëri Leewtoo ba dagg nañ ko taxawaat man gaw nañ ko gaawal sa ñaa sànnante nañ Alaaji Gaynde sànni building sànni Alaaji Gaynde door na Alaaji Gaynde dooraat ñu jàppante building dox na ci kawam mbaa kaaw du am mbaa kaaw du am building Alaaji Gaynde combat bi dana jeex mbaa kaaw du am Alaaji Gaynde door na building door na Alaaji Gaynde door na building door na Alaaji Gaynde door na building door na oxo Alaaji Gaynde building oxo ay waay waay bëre nañu xeex nanu laa la wax. xeex nanu laa wax. ya ndey. xeex nanu xeex nañu. xeex nanu waxoon naa leen pour jigéente rek musiba am. xeex nañu yow. combat bi du yomb daaw ba ren. xeex nañu yow. ndeysaan combat bi du yomb. ay waay dóorante nañu. alaaji gaynde. oxoo musuñu wax nga xam ci lii. building ndeysaan xeex. building combat am du yomb gis nga fi takkusaan ki mu fi jógee booy jaxaw. ndeysaan mu nekk combat bu métti. kontaan nan ndeysaan lamb na sax mu neex bu fi yemoon sax mu neex ndeysaan no koy daanaka bëri rek ci des ay la oxo building a laaji gaynde no koy xoolal fële no koy xoolal fële ndeysaan no koy daa waaru xeex bee métti ñaari ponk li ñu fang sumeeku. waaw jàkkaarloo. combat bee yàgg. oho ñoo yàgg nee na ma revanche la. ambulance. ndeysaan leen a daan. ndeysaan tey nag El Hadj Gaynde dafa ñëw lancer défi. oho. ay magam. tey sama kamara woon bi. ndeysaan. nogay ngay mujj di reporté si yow. sama kamara woon baa ngay mujj di reporté. kooku El Gaynde la nogay. kooku El Gaynde la. gis nga ko noonu. oho. cey. building du ragal. El Gaynde du ragal. ay jàmbaar lanu. oxo arbitre bi woowaat na leen hmm, xeex bi bu doon ci digg géew bi mbiri am oh day am da action day am parce que building téere bopp bi moo wàcc ci bëti mu koy defaraat alaaji gay na fekk ko fa laay laay la la ci ko jote dóore kuu ko dóor oxo ndeysaan building ma ngay sëlmu ma ngay sëlmu alaaji gay na waaye fële fële coow la bari na supporter ya coow la bari na supporter ya coow la bari na supporter a coow la bari na xoolal building xoolal nga Alaaji Gaynde li muy def yow waaw xoolal Alaaji Gaynde yow eh, eh bu nu noppee nogoy dina yéeme nogoy xoolal coow la fële supporter ya eh, eh. ndeysaan du nu bàyyi dara waa Thiès fa lépp lañ leen di jox lépp li nga xamante ne am na dina leen ko jox di leen ko fàngal ba ngeen gis ko ndeysaan Alaaji Gaynde ak building arbitre baa ngi wax ak ñoom di leen di xool bu ne taxaw leen ngeen taxaw bu nee bëre leen ngeen bëre gis nga avertir nañu alaaji ngay nekk ah avertir nañu building ñoom ñaar yëpp ndax arbitre dañ leen taxaw leen bëre bi jeex na ñu kon ne di bëre du yoon normal a ca kon arbitre bi sifflé waat na arbitre baa ngay waaj a sifflé sifflé na diggante alaaji gaynde ak ki nga xam ne mooy building Alaaji Gaynde wan ma ginnaaw. Building musul bëre combat bu yomb fii. wax nga dëgg sama consultant combat njarneem lay doon. ndeysaan di nga xeex dinga nga bëre. wax nga dëgg de. ndeysaan Building Alaaji Gaynde. oh Alaaji Gaynde Building. del ña nga ca arbitre ba sifflé waat na ñoom ñaar. Alaaji Gaynde wan ma ginnaaw. Building wan ma kanam. ndeysaan Alaaji Gaynde Building. Alaaji Gaynde ni muy demee boo ko gisee daa bëgg a dugg waaye Building taxaw di ko xaar. cey alaaji gaynde cey building cey alaaji gaynde cey building ndeysaan fi mu tol nii alaaji gaynde ak building taxaw nan bu baax oxo xoolal alaaji gaynde dafa taxaw di ko ni tekk di ko déglu waaw waaw dafa mel ni ñoom ñaar ku ci nekk ci ñoom am nga garde ku ci nekk ci ñoom am na loo ndax building mi alaaji gaynde da ko sifurle dóor ko dóor yu bëri buñ jàppantee rek dara am. lamb ji nar a neex la. te jaam ñu bëri danoo foogoon ni. laaj gaynde day bëre building day bëre. ñëpp danoo foogoon ni building moo ko dàq xeex. déedéet. lamb demeewul noonu de. ndeysaan ndeysaan day ngay indi lii sa morom indi lii. wax nga dëgg de arbitre ba. ko may na nu ñu wax ci lamb ji. alaaji gaynde alaaji gaynde building door na sànni na ña ngay xeexaat ca digg ba leen xeexe ca digg ba leen xeexe dara dina xew dara dina xew yow dara dina xew alaaji gaynde building alaaji gaynde building jàppante nañ jeex na jeex na alaaji gaynde jeexal na làmb ja alaaji gaynde jeexal na làmb ja alaaji gaynde jeexal na jàmm la alaaji gaynde jeexal na building alaaji gaynde daal na building na ngay bul coupé may ma tuuti alaaji gaynde daal na building oxo alaaji gaynde daal na building oh xoolal ma fair play bi xoolal ma fair play bi dem na yëkkatil ko ni ko champion na nga xam ne nii la lambu leenu ñaam bi la kenn xamul fu muy dammee oh alaaji gaynde daal na building no koy ndeysaan oh alaaji gaynde daal na building alaaj gaynde daal na building jël bu amul benn werante alaaji gaynde alaaji gaynde may ba ma dem ci Alaaji Gaynde waxoon loo wax ci Alaaji Gaynde du xeex du bëre ay ko ko digal ñu dem ci Alaaji Gaynde newoon naa ay mbokkam nan dem ci Alaaji Gaynde nan dem ci Alaaji Gaynde no koy ñëwal nan dem ci Alaaji Gaynde wax dëgg yàlla wane na ko ci ci ci fulla ci jom ak ci xeex ndax lépp moo dafa ñëw xeex duma jàpp daan nga dëgg gis nañ ko waa Thiès revanche ba. billaay wallaay waxoon nañ leen ko bu arbitre bi sifflé ñu xam ne lépp dëgg la. ndeysaan leer na leer na. d'accord daan ko loo gis da ah. yaa. ndeysaan ñun Alaaji Gaynde moo dee suñu xol yi. grand bu doon jigéen Alaaji ñuy laal. ndeysaan xanaa looloo wóor.